waaw mbokk yi ba tey ak ñu nekk euh, ak wulli nga xamante ne vraiment mën naa ne la jamono ji moom ñoom Balla Gaye de sa ñu ko coow ñu ngi lay ziar sambi ñoom ñoom ñëpp maa leen ëpp coow wala neexul ñoom ñëpp maa leen ëpp coow wala neexul yàlla suñu borom moo ma xam nga yàlla bu ànd ak yow nit ñëpp mën nañu ànd ak yow mais yàlla bu ànd ak yow wala neexul te yàlla moo ànd ak man mbir yëpp ma ëpp leen coow ëpp leen coow te yàlla yokku ma kontaan man na ra a jàppale jaan door ko ba mu daanu fi ma ciowlip dina yokku ma gëna am bës wala neexu kum fi daan xam nga dama bëgg Lirou jaan dama dama bëgg waxtaan bi neexna comédien bi neexna mais dama bëgg mu wax ñu kan la fi daan aussi Lirou jaan na leen wax ci digantem ak yallaam kañ la gis am victoire ci lamb ji Sénégal. cent quinze kilos barke sëñ Ba moo ko doole fuuf fuuf fuuf mun na peser cent vingt kilos Lirou bu ma ko doolee mu daanu bu ma ko soogee mu daanu maa ko tax a bee maa ko tax a bëre xeex maa ko ëpp fit ëpp ko ñaan wala li neexul barke sëñ Ba maa ko ëpp lépp dama mën a bëre grand grand caat booy bambara mii nu coow maa ko jëkk daan fii barke Mouhamed man dama mën a bëree mais bu njëkk dama doon caaxaan lamb ji mais léegi bi yàlla ànd ak man ñepp ànd ak man Sénégal yëpp ànd ak man may entraîné waat sérieusement dama ne maak Lirou Diane barke Mouhamed bu ma suma ko fii ñëpp nañ sax lii du combat moo gën a bari wax ñëpp moom Lirou Diane wax dong koy tax mu am combat wax am kese daanu fi kenn lambal lamb yi muy def di lambal di wax loolu lu ko may combat mais lu Diane danu fi kenn dañu wati deug aussi non Lirou Diane mom moy jaxasse man assis ngay kuma xam xam ma ak mom non balagay de sama way la man balagay de na and ak Liu Diane man yalla na and ak man balagay de mbeur la comme man mbeur la comme man comprends nga balagay de ay patron ñoo and ak man balagay de ñimu yaakar ñu ay patron ñoo and ak man comme balagay bu anek ak Liu mais loolu yëgalu ma dama ne la ay patron ñoo ànd man di ma ñaanal di ma ñaan loolu di gërëm père mu Moustapha Guèye Moustapha Guèye ak père Mouhamed Ali Ndiaye champion du monde ci karaté dañu ma bëgg a yóbbu Paris la France waa Aziz wax ma ko waa Aziz damay dagal billet jox ma père Moussa Fall ak père Moustapha Guèye ak père Modou Adiaye Balla Gaye 2 ñooñu xam na leen ñoo ko yoroon ma ne Balla Gaye moom xam ne sa maa ko mën ay patron ñoo ñoo may yor ñi ko doon préparé moo moom Modou Lo ñoo may préparé père Mohamed Aly Ndiaye père Mouhamed Moustapha Guèye ak père Moussa Fall man Aziz Ndiaye danoo yàgg Aziz Ndiaye kenn mënoo ma jaase ak moom leenu jaan barka Mouhamed ba ko Aziz di woo man mii sax la laaj numéro amu ko sax. kon léegi France ngay préparé sa combat. Paris laa koy préparé woo parce que combat bii mooy sama combat di siècle parce que liiru jaar wax dëggu si yàlla ku musul nit bu ñaan yàlla mu mu daan la musul daan kenn mais ku non non xam nga aussi champion dafa neex. sa champion danaan liw jaan daan na fi diw daan na fi diw daan na fi bi gën a gaaw ci siècle bi xaadim gajaga gajaga xaadim gajaga moo ko daan liw jaan du mbër combat bi gën a gaaw moo tax tax xañ nga daan liw jaan barke yàlla bu la waxalee digganteem ak yàllaam am na fukki at ak ñaar amul ndam xamul ndam fi mu toll lilu xamootoo ndam mosoo am ndam ndam xamoo ndam man xam naa ndam ci ndam laa jógee Lirou Diane barke Mouhamed Rasoulaay bu yóbboo ñëpp jàppale ko man yàlla moo ànd ak man mais ñi may jàppale Assis Ndiaye Thierno Diaby man ay gamien ñoo ma yor barke sax ay milliardaire gamien waaye damay sant yéen tam da ngeen ñuy laaj ñuy gërëm nga naan merci beaucoup damay gërëm ñi may sant ñi may gërëm boo ko dina nag boo bu ko dagg Thierno Badji milliardaire Gambia moo may jàppale ay Aziz Ndiaye Cheikh Tidiane Baye Zal directeur Jador man ay milliardaire ma yor man wuli wali neexul yàlla ànd ak man wali neexul yow nga ànd man wali neexul léegi na nga ma yàq man wali neexul